waaye nag di ñaanal seddil seydil na maam ahmadou ndaak sekk yàlla yokki leeram te tax ci barkeem di sant yàlla waaye di julli ci yonent bi tëbb ci faydu Cheikh Ahmada Tijaani di am mbégte ak kontante waaye nag fii ma toog di wax du ma diis la ndax ñu bari xamewuñ ma ko man moom mën na maa ñëw toog fële ndax samay kilifa rek fi nekk te li ñuy wax lépp macha allah mat na rafet na di nuyu sëriñ aadama Seck mën naa ne su ma ko nuyoo day dugalaale ñëpp ci biir waaye di nuyu imaam Madiou Ba euh, di ko sant tamit ci kàddu yi ci waxtaan bi nga xam ni defar na jamono waaye defar na àdduna sax wax. ndax ñun ñëpp suñu problème loolu waxtaane imaam nag xam naa ni koo fi gën a xam-xam naa ni bëriwul ndax yàlla daa dogal ñu teel a ànd ñu teel a bàyyi de xel man bokk naa ñeg mën naa wax ni ñi ma gën a xam Thiénaba sax bëriwul laay wax ndax man maay xaritu mag ñi dañ lay déy imaam mii li ma xam ci moom bëriwul ñu ko xam nit dinaa xam ci moom loo xam ne xamu ko sax ci moom ci boppam Baye Modou Fall laa mas a toogal imaam romb mu ne ma kii de maag bàyyam ñan nañ ñaar fukki at sunu borom wàcce di dugg nañ xalwa ñaar fukki at di ko ñaan sunu boroom wàcce ko ci jamono ba mu wàccee ci jamono mu tuddee ko Maadiw kon kay am na lu xew sëriñ bi wax na ko sànq. ni papaam danoon na ko jàngal faatiha salaatu faatiha kese kenn ku ne nag mag ñi doom ju ñu am am na cër sëñ aadam mi toog tey cëram noonu la deme waaye du lépp lañuy wax ndax nag ci seen sijaade yi ñu toogoon liñ doon gurus yàlla rekk la ma amul ndaag bu mu liggéeyee ba wàcc Seexu Amadu jox ba mu ñëwee ak géej lañu sampal muy xadara ahmadiya gis a géej googu ku ci sóobu loo ci gën di yàgg di gën a leer di gën a belli di gën a set loolu rek a fi nekk te loolu ku ko amul amoo dara kon ñoo ngi sant bu baax bi ñu ñëwee ci tànt bi toog kilifa yi toog ñu génn fi liñ fi war a génne dama ni canaba foo dem ni canaba laa bokk ñu teg la ca kaw xëy na nag bu yàggee sa jikko mooy tax ñu naan la dëkkoo janaba lañ lay wax dañ naan yow mi dëkkoo janaba loolu nag que ñu ko liggéeyal mag ñi rekk la te mag ñi juguñuñ fi mag ñi fekkee dañoo dem ndaw ñi des fi ñu naan mag ña dem nañ dara baaxatul comme mag ñi dañ naan dañoo weddi seeni seeni seeni mbir mag ñi dañoo ñaan yàlla nangul leen kon ñoom juguñu fi kon daal ñu ngi sant di gërëm Serigne Mansour Mboup nag yàlla moo ñu boole bi ñuy xamante di bëggante di soppante ngir jëmmi yonent bi alayhi salaatu wasalaam booba ay fondation sax xamul fondation nag bi nga xam ni moom lañ yor muy international julli ci yonent bi rek la muy suñu liggéey ñun parce que ñu ngi ci 2 milliards yu teg fi mu toll nii ci julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci àdduna bi yépp nag Mansour mi xam ne li may wax boo duggee ci biir groupe bi 12000 salaatu faat faatiha yi jigéen ñi def am na ñoo xam ne daaw def sax 100 te léegi dañuy dañuy dem di xuusi ci salaatul ala nabi ba nga xam ne ñii da yëg nii ñoo ngi dem loola nag bindee njabootu seexu na ba di ci dox loola liggéeyu mag ñi rekk la waaye du ñun yàlla boole ñëw kilifa bi ñu taxawalee fondation bi alxaaji Mor Gueye ñu tegal ko président moom itam lu mu am def ko ci biir liggéey boobu di yóbbu nit ñi màkka di maye ay oto leen mu leen dimbal Mansour nit am taxawaay bu rafet ci biir liggéey boobu fu ñu ne ko nañ dem rek mu jug dem ànd ak ñun euh, fu mu dem rek tagg fa yonent ba nit ñi am li ñu yëg si ñoom ndax nag dama naan canaba xadara ahmadiya la fu ñu dem rek mu yëngatu euh, tagkat yenent yi bëri nañ de waaye Mansour fu mu dem dina yëngal lépp alxaaji Mor nag léegi lañ mujjee ko bëggoon naa ñëw trop bis bii moom chaque année heure bi fees la koy fekk day jël nit ñi fi ndool pare woon na lu ëpp cinquante personnes yoo xam dañu waroon dem Fès li xew Fès jaxasoo yi fa xaw a am nii rek euh, Maroc moo tax affaire boobu ñu arrêté ko waaye dañu woon tey ren day ñëwal boppam fii toog fii ndax yëg na ni Mansour ku bëgg yonent bi la yëg na ni jëwriñu yenent bi la yëg na ni mu ngi yëg liggéeyal yonent bi loolu rek ko ci ñor mu ne moo taxoon mu ni day ñëwal boppam léegi lañ déggante yaramam xaw a sutante mu ni ma nekkal ma fi santal ma Mansour gërëmal ma ko te maa ngi koy ñaanal yàlla di wax ni kilifa yi fi nekk yépp it mu ngi sàkku seen ñaan ngeen ñaanal ko yàlla wéral ko yàlla dëgëral ko waaye guddal fanam ndax lépp lu mu am yàlla xam ne def na ko ci yonent bi day jël oto sax maye ko ni yonent bee ko jox démb dafa yëkkati nag jox ma ko bi may wax ngeen ñaanal ko tey yàlla dolli wéram dolli suturaam ak xéewalam ndax koo xam ni moom dafa jë dafa jë dafa tippoo yonent bi ba alalam dundam léppam da koo jël jox ko yonent bi kooku tamit jar na ñaanal moo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey bu sañoon daal day ronu tànt bi toog fi Cheikh Tidiane Ndaw mu nga ne ci la bokk sëñ Pape Mbuub ci la bokk Mouhamed Yacine Mbuub mii ci la bokk Modou Madi Cissé am nañ fi dem benn émission télé mu ngi may xamal tamit ni soppee na bi yëpp fàttewu leen ay mbiram moo xaw a mel noonu waaye nee na incha allah dina jàkkaarloog yéen bëgg na leen recevoir waxtaan ak yéen te lépp nag li ko ëmb mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon daal ñun suñu kàddu lépp lu ci jubul di ngeen xam ni lii dañ koo tàmmul xamuñu ko waaye di nuyu sëñ Ibrahima li sëñ Mouhamadou di wax ci baayam ci waajuram moo dal ñëpp sëñ Maodo ko rek men dañ ma ko tàggee toog naa la yàgg mënu maa xam kan mooy sëñ Maodo ndax ñun ñëpp dañ ko ëmbal cofeel ñun ñëpp dañoo doon sagu ci moom ndax cana ba waaye canaba gépp da ko doon sagoo ñu dem ba si yàgg diine jépp di ko sagoo ñu dem ba si yàgg tarixa bi yëpp di ko sagoo kon kooku sagu diine ji la woon kon bu ko yàlla yóbboo ak njaboo tamit mel nañ war a mel dañuy sant yàlla te ku dégg seen i kàddu xam ne yéen a ci li ngeen war a nekk kon yàlla yàlla jàppale leen te taxawu leen te kàttan leen aar leen sàmm leen ñoo ngi sant ñëpp sëriñ Mansour si alaaji Moor kontaan na ci yow gërëm na la sant na mu ngi lay ñaanal yàlla bis bi ko yàlla gën yokk yàlla na yàlla gën laa dëgëral sàmm la Mansour ku baax la ku woyof la ku bëgg lu baax la fu ñu génn nag dinaa leen xamal leen moom message su Thiénaba da koy yóbbaale image su Thiénaba da koy yóbbaale te da koy jaay kooku nag jar na ñaanal yàlla na yàlla taxaw leen sàmm leen aar leen wattu leen imaam kontaan nañu sëñ aada tey moom dama dama am problème bu war a wax sëñ aada moom moo gisee du ma damay rus sax wax imaam li mu wax it ñu par imaam noppee